asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu santee yàlla ju seen son ñu nuyu yëpp di ñaan yàlla dool dal dool jàmm si réew mi ñu ngi nuyu njiitu ko El Hadj Bougane di ko ñaan ñaan njabootam di nuyu Sénégal yëpp tey dañu ñëw si njëriñu jinjeer jinjeer nag defe naa ne moom mu ngi nii moom defe naa ne kenn umpaleetu ko moom jinjeer nekk na loo xamante ni euh, moom la tuddee la plante qui réchauffe boo demee fële si Chine ak mel ni Pérou Indonésie ak ñoom seen gars yi bëgg nañ ko dañ koy tàngale yaram kon moom lu baax la moom jinjeer dafa rek ay principe activité si biir hmm? mel ni ay gingembre ay curcumine bêta desalène et cetera et cetera ay principe day am na principe actif onze yu ne si jinjeer moom jinjeer onze principe actif yoo boo si jël benn boo si jël day faj day faj ulcère moo tax recommandation bi ñu si njëkk a jox si ulcère lay doon soo amee jinjeer bii rek da ngay jël sa loxo ba mu nga dëbb ko def ko sunguf yëngal ko ba mu far nga def ko jus segg ko saa yoo lekkee da ngay xel genn wàllu su ko dul am naan bu leen sax mën nga ko jiital bala ngay ndékk wala ngay bala ngay reer dafay maasale ulcère boobu koy cicatriser. muy lu am solo aphrodisiaque la aussi moo tax ñu koy digal gars yi ñu koy def ci di ko naan surtout dafay gën a dëgëral euh, awra lu baax a baax a baax la dafay renforcer dafay faciliter digestion boo ko dee naan aussi da ngay digérer saa yoo lekkee naan teg ci jinjeer da ngay digérer normalement ñu ngi am ay problème ballonnement ay gaz ay seere seen biir def ngelaw di jooy bu ñu ko dee jël di ko booleeg lem si kàttan yàlla mooy dafay dindi loolu di gaz gaz yooyu soo ko dee jël te amoon jafe-jafe yëg-yëgu say perte libido boobu daf koy delloo si kon moom jinjeer lu lu baax la si wàll wàll woowu dafa yokk sa taux testostérone aussi ñi nga xam dañu am jafe pour am doom ak yu mel noonu wala seen walax njiyaan mobilul dañu xaw a tayel du ñu yëngatu lu baax sooy jël jinjeer bi aussi daf lay dimbali ba loolu mën a am mën a am saafara si lu gaaw a gaaw a gaaw jinjeer nag dafa am benn mélange bu ma leen si may boo xamante ni boo ko dee jël si kàttanu yàlla yàlla mën a dimbali daal bu dee ku xawoon a néew doole tuut si wàllu sëy yàlla dana ko mayaat kàttan muy da ngay wut jinjeer bi boo amee nag euh, ñett yu toll nii boo amee ñett yu da koy wal ba mu nekk sunguf nga wut xorom polle ngëpp wut jar ngëpp wut ñaari doom pitikola wut li ñuy wax euh, grain de nigel muy doomu xabat sawda yu ñuul yooyu nga cof si lu toll bu mag wal lépp ba mu nekk sunguf boole si tuuti muscade su ko defee saa yoo reere rek wut si kudd ndaw def si genn wàllu kaasu dute wala mm, yaa xam ngun gu ngay tàngal def ko si yaa xam ndox mu tàng lay doon yëngal naan si kàttanu yàlla yaay raw robo kooku moom soo ko dee jël defe naa ne daal bari nañu ko essayé daal defe naa ñu ngi sant bu baax a baax a baax jigéen ñi nga xam ne aussi dañu amoon doom wala ñu yàgg am doom ubbeeku aussi bëgg tëjuwaat mën nañu jël jinjeer bi aussi ñu gratter ko def ko ba mu ba mu mokk ñu jël quarité ménagé ko moom def ko ay donj ay dànk di ko def seen kanam bu ñuy tëdd kooku dafay tëjaat jigéen si kàttanu kàttanu yàlla loolu lu mat a bàyyi bàyyi xel la suñu question ni ñeeni tey ku njëkki nee ne daal moom dafa gént di jàng suratul nuur suratul nuur la jàng gént di ko jàng loolu moom vraiment liñ daan le bonheur suprême maanaam fa maanaam bànneex yam ak fa xéwal yi si kàttanu yàlla yàlla na la ko defal moom daal danga danga am ay xéwal te da nga kontaan waaw moom jàng sootu nuur moom yàlla na la ubbi lépp leeral la ko waaw looy lijjanti daal mën naa bañ a mën naa kawe keneen ki daal ne dafa génn ñu jox ko cadeau cadeau nag dafa doy waar xam nga cadeau moom ni ñu koy tekkee dafa dafa yéeme ndax nga gént góor waxambaane jox la cadeau ak nga gént xale bu jigéen bu ndaw jox la cadeau ak nga gént ab jeeg jox la cadeau bokkul nu ngeen di firee bu dee da gént nag maanaam góoru waxambaane ku mag daal jox la cadeau moom en la maanaam beñal gu la nit mbañ la beñal la la ñu woon ku la ku la nit mbañ mën nga am chance mu won la ko nag mu nekk ñu la woon mën na nekk beneen dañ la ko woon fekk beneen jëmm lay lay wone kon sans parti que ngi si gént gi moom la rek mais mën nekk keneen soo génte nag xale bu jigéen jox la kadoy ba léegi baaxul ndax rupture la maanaam boo amoon ngoro daal boo si ngoro gi si la jëm waa bu doon da ngay labat daal boo deful ndànk daal mën naa bañ a bañ a rupture daal lay wane mën na nekk relation amicale sa digganteeg nit mën nekk nit ngoro goo doon goo doon fas mais gént daal xale bu jigéen bu ndaw jox la kado it baaxul bu dee ab jeeg nag moo la jox kado moom danger la kooku moom booy ba nga moytu waaw daañu donc boo xoolee daal jox cadeau moom di leen recevoir ko si ñett yi ñu ko xamee benn baax su ñu leen tàggu fii di leen jox naan du seen émission gërëm jërëjëf.